benn xadis ngoog boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci abu said al-xudri yal na ko yàlla gërëm xadis bi buxaari yu soloo ko benn waay boo xam ni yonente bi alayhi salaatu moo koy nettali nee na benn waay boo xam ni dafa doonoon ku bari woon alal lool bari ay doom teg waaye nag waa ji mësta defal yàlla suñu borom tabaraka wa taala dara lu baax am na sax beneen riwaaya bu ni waa ji amul yaakaar ci ay jëfam ngir yàlla yërëm amu ci benn yaakaar ci ay jëfam boobu riwaayab abu xusayfa la waa ji ba demee ba ba yaakaar ni mi ngi bëgg a faatu dafa woo ay doomam <clears throat> ni leen nan laa mel ci yéen comme bàyyi doom yi ni ko yow de bàyyi nga joo ni baay bu gën ci bàyyi nga lu ne yaa ngi koy defal say doom bàyyi ji ni leen waaye nag man samay jëf yaakaaruma ci dara ci yërmande yàlla ndax defuma dara lu baax mu daal leen wax ni leen ida mittu fa axriquuni xatta ida kuntu faxman fasxaquuni mu ni su ma génnee àdduna su ma dee na ngeen ma lakk ba ma def këriñ su ma defee këriñ nag na ma wal ba doon dóom xatta ida sirtu faxman fasxaquuni na ngeen ma wal ba ma def dóom subhaanallah mu ne ida kunt ida kaana yowmun aasif su ngi demee ba bés boo xam ne dafa bari ngelaw lool lool lool fa'dharuni fiha gis nga ko baatub zaariyaat dikk na fa'dharuni fiha na ngeen ma sànni ma ànd ngelaw li tasaaroo dem kon baatub fa'dharuni laa soxla woon waaye bàyyi ma bàyyi ma continué xadis beeg yéen xool ba doom yi ba mu doom yi lakk ko ba mu def doom wal ko ba mu def lakk ko ba mu doon këriñ wal ko ba mu doon doom bàyyi ba benn bis ngelaw li bari lool ñu génne ko ca wetu géej gi sànni ko ngelaw li boole doom baag lépp tasaare ko mu dem yoona xanaa jeex na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di nettali xadis bi mu ni bañu ko sànnee keroog yàlla suñu borom tabaraka wa ci kattanam daal ne kun daal ni waa ji nekkal waa ji taxawaat nekk jëmmi doomu aadama taxawaat jot nekkaat nit taxaw subhanallah yàlla suñ borom tabaraka wa taala ne ko lan moo la xiir ci lii mu ni ko maxaafata adabik ragal sa mbugal képp beneen riwaaye sax daf ni ko xam nga li tax ma def ko mooy ragal la ragal a dajeeg yow ëllëg kon daa ne kon waa ko ragal yàlla la waaye nag ci jëmmi wax jooju borom bi tabaraka wa taala jéggal ko yërëm ko yóbbu ko aljanna subhanallah yàlla ko bari yërmande la sëriñ bi <laughs> waaye baatu fa'dharuni bi soxla woon waaye moo wax la ni yàlla ko bari yërmande la say bàkkaar lu bari bari bari bari bari bul ñàkk yaakaar ci sa borom tabaraka wa taala jéem a la góorgóorlu rek te jéem a tuub rafetal illa alladina taabu dafa bari ci alquran fu yàlla tegee mbugal rek dana ca teg ñaare illa alladina taabu wa aslahu wala illa alladina amanu wa amilu salihati wala illa man taaba wa amana wala mu ni fa man taaba kon borom bi ku bëri yërmande la ku bëri njëggal la yal nañu yàlla yërëm te yal nañu yàlla jéggal